Guy Marius Sagna tribunal na ko coupable condamné ko trois mois assorti du sursis mooy ñetti weer mu dul tëdd procureur da ko demandé juróom benn weer mu tëdd ñeent fukki junne amende bon mën nañu wax ni baax na mais baaxul parce que décision bu mel ni dañ ko déclaré coupable d'abord ni ko yow liñ da toppee yaa ko def or liñ ko doon toppee dañ ne dafa def diffusion de fausse nouvelle délit bu grave article deux cent ni procureur donc moo ko mën jafe-jafe am na ku fi ne gendarmerie dañ ma ay bandi lañu dañ ma sax laaj cinquante millions pour ma bañ leen ki loolu di fausse nouvelle la et dafa grave mais Guy Marius dafa joxe xalaatam ni ko ko article dix constitution mais nga citoyen bu ne am nga droit nga wax sa xalaat ci dëkk bi ni muy doxee wala ci diw ak diw saa nga saaga ko mais saagul wax bu tegginu la wax bu rafet sax mais ñi ñi jàpp nañ ko division de fausse nouvelle boole ci gendarmerie gendarmerie corps bu am solo la waaye mais gendarme du institution ndax institution boo ko wax bu ñaaw te bu porté wul plainte comme ci diffamation li gendarmerie waaye dafay fekk ni yow nouvelle bi nga joxee garaaw na garaaw bi nga xam ni mën na nërmale institution yi nërmale dëkk bi ba indi ay problème deret tuuroog yooyu mais lii dafay fekk nga tooñ institution bu dee tooñ am na mais non seulement tooñ amul mais gendarmerie du institution article six constitution bu Sénégal bi muy énumérer institution yi boolewu ci police boolewu ci gendarmerie boolewu ci keneen ñooñu ci boole ñoon ñooy institution yi donc mënoo bu la neexee rek nga ni bon tooñ nga institution yi ndax gendarme institution procureur bi monté woon sax dafa insister ni mooy maa ngi insister gendarme institution la nga xam ni kii moom bu dee dafa am problème ak ni mu jàng école affaire am la mais nag gendarmerie institution ndax suñu constitution bi nga xam ne moo ñu tënk ñu ñëpp waxul loolu